salle de classe aussi te amul ay jàngalekat day doy waar te boo gisee yenn région yi gën a sori souvent ñooy am déficitu jàngalekat parce que jàngalekat bi day am vocation pour jàngale waaye bu ñu ko affecté Kolda wala Tamba wala Ziguinchor wala Sédhiou wala feneen wala Bakel wala Matam day def tout pour ko ñu indiwaat ko Dakar loolu aussi il faut qu'on le règle ci dialogue bi nga xam ne état daf koy am ak organisation syndicale yi il faut que ñu régler enseignants yi pour éviter que euh, régions yi ñu jàpp ne mooy les régions économiquement denses ñoom rek ñoom ñoo war a am ay enseignants yeneen région éloignées yi ko am loolu muy benn ñaareel bi l' état doit recruter et l' état va recruter at mu jot état bi mu ngi recruter personnel enseignant donc ci loi de finances 2024 bi également ça va être la même tendance